ruuhul qudsi la ñu handal waaye barahama yaayi haalam bi kulahum am na saweeta yàlla yàlla jox TV ñu ngi am beneen yoon kàddu contentement tey nag mu nekk bés boo xamante ne ni ñu ngi jullee fii nga xamante ne nii moo nekk si euh, jumaa ji waaye nag nekk loo xamante ne dëgg-dëgg tey ku ne xam na ne li waral tey jullee bi fii nii euh, li fi dal àdduna bi yëpp la tey nag message boo xamante ne nii dafay jàll si àdduna bi fu ne moom la kilifa yi di joxe tey nag euh, kilifaay kilifaay Kossy TV ñëw siyaare si soppeem bi xaritam bi léppam di Mawlana Cheikh Lislam Barkati Anam yàlla yàlla fayal ñu ko yaay booy bi ñu la fekkee fii nii nga am tey bu ñu joxe alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yontam bu tedd bi salaa salaam di sant suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu di ko ndokkeel di ndokkeel mboolem njobootam di ko ndokkeel ci xadaraam bu bi di ko ndokkeel ci weeru sell wi nga xam ne bii ne ci lañ bàyyeekoo muy weeru koor muy weeru Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala nga xam ne bi lépp luy diine islam rek moom euh, mbiram la euh, weeram la yitteem la taxawaayam la ñu ngi sant ñu ngi di ndokkeel xalifatu ham papa Cheikh Tidiane yàlla yàggal ko ci suñ kanam lool te may ko wer di ndokkeel itam imaamu akubar moom itam imaam Cheikh Tidiane Cissé yàlla may ko wér yàggal ko ci suñ kanam di siyaare mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye taala anhu di mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu di siyaare mboolem njabootu muqaddam yi àndoon ak Baye yëpp. ju wax na ñu ngi sant yàlla julli gi julee tey ci jumaa yi sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu li ko waral mooy feebar bi nga xam ne wàcc na ci jamono mu nekk mbas ñoom dañoo top li nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu santaane ci feebar bu amee ci dëkk wala ci réew wala ci ay réew wala ci ay place yoo xam ne bi na buñ dajee dafay am leneen lu muy jur ci wàllu feebar ba ñoom dañoo appliqué li sariyaatu santaane appliqué li diine islam santaane appliqué li njiitu réew mi eh, santaane ak appliqué li nga xam ne bii mooy jik doomu aadama yi seen taxawaay yëpp mooy luy musal doomu aadama yi ni ñu ciy ñaanee noonu lañ koy organiser pour jaami yàlla yi mucc ci feebar bi nga xam ne mbas la ñi ngi sant yàlla nag yàlla dimbale nañu ñu oor ci jàmm war ci jàmm ci barke sama sëriñ yàlla dimbale nañu def guddi laylatu xadari bi ba mu pare Euh, muy xatmu bi ci jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ci barkeem ci liggéeyam ci dina islam ci liggéeyam ci tariqa bi ci liggéeyam ci faydu bi moom la yàlla jox faydu moom mooy sowetaas toujours damay wax ne baay mooy sowetaas ku bëgg mucc ñëwal ci baay baay mooy sowetaas mooy garante ku bëgg a mucc ci ci zahir ak ci baatin ak ci lu mën a doon bëggal baay rek baay mooy euh, rawukaay bi gën a raw moo gën a mucc moo gën a musal jaam yàlla yi parce que moom pour mu musal jaam yàlla yi moo ko tax a jóg kon nañ bëgg baay lii yëpp bëgg baay moo ñu ko may euh, yaakaar naa sëy naa Moussa yaa ngi ma doon laaj ci laylatul xadr bi ak korite gi waaye yaakaar naa liñ ci bëggoon yëpp baay may nañu ko ci euh, laylatul xadr nañ ci jaamu korite nañ ci jaamu macha allah baay lu mu def rek def na ci tono ci julleekaay bi lañ daan jullee tuyaaba la barke fii ñu julee tuyaa bara barka la rawatina fii ci barab bam bi nga xam ne dañoo dend ak moom julee at lii dara ëpp ko ci kawnu bi dara gënu koo rëy lii moo ëpp lépp lay gis ci alam bi ñu ngi sant yàlla ñu ngi ndokkeel julliti àddina bi yëpp ci korité bi di ndokkeel umma islam bi di ndokkeel xalifa senaro yëpp ak seeni taalibe muy fu mën a nekk rek ñu ngi leen di ndokkeel muy Touba muy Tiwaawan muy Njaasaan muy Laayeen muy Cenaba muy fu mën a doon ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu sell wi ci mbootam weer wi ci bisu Eid bii di ndokkal kilifa diina yi nga xam ne biina ñoo nekk ci réew mi yëpp waaye rawatina pay bi pay bi seen taxawaay rafet na xalifa bi taxawaayam rafet na ngees yal na ko yàlla yàggal imaamu akbar imaam Cheikh Tidiane si sa taxawaayam rafet na yal yàlla yàggal ko fi ak seen mag ak seeni i rakk muy njabootu baay gi yëpp muy góor muy jigéen mag muy ndaw taxaw nañ taxawaay bu rafet ci pay bi ba lépp jàll ci jàmm alhamdulilah maa ngi gërëm njaboot gi yëpp nag di gërëm mbokki taalibe yëpp di gërëm muqaddam yëpp ak seeni taalibe di gërëm sama njaboot gi tam nag di ci jiital eh, ñi nga xam ne ñoo yore tey eh, Kossy TV bi tey muy Seyna Moussa Seyna Aliou Mohamed eh, Kebe ak njaboot gi booti seen gannaaw yëpp di liggéeyal paydu bi di liggéeyal pay bi di liggéey diine ji di liggéeyal tariqa bi di liggéey faydu bi maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yokk leen ci zahir ak ci maa ngi ñaanal magi taalibe yëpp di ñaanal président daayira yëpp di ñaanal sama njaboot gi nekk Sénégal ak gi nekk bitim réew. waa sant yàlla rek di wax ne jàmm rek moo xew jàmm rek kay xew itam incha allah rabi nañ seen xel dal jàmm rek mooy xew feeg ngi ànd ak baay buñ am tiitukaay. waaw maa ngi ndokkeel ñu nekk bitim réew yëpp eh, di leen ziare eh, di leen ndokkeel ci pays sama sëriñ di leen ndokkeel ci weer wu sedd bi di leen ndokkeel itam ci xadar bi di leen ndokkeel ci xeet bii ñu bàyyeekoo di leen wax ne nañ bëgg baay rek añ fu mañ di ne nañ bëgg bàyyi rek peeg ñi ngi bàyyi rek bëgg bàyyi rek bàyyi ngi jàpp ci seen loxo buñ am benn tiitukaay ak réew yi lu bëri bëri bëri lëcc ak lu feebar bi bëri bari ci réew mi feeg ñi ngi bëgg bàyyi ci seen xol rek nañ bir na am nañ garanti buñ am benn tiitukaay duñ ci bokk mukk incha allah rabi ci barke sama sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatulah.